aussi actuellement euh, la population est en train de vivre des situations très alarmantes donc euh, notamment la crue du fleuve euh, Sénégal où beaucoup de nos compatriotes actuellement euh, n'ont pas de, de maison euh, sont en train de vivre des situations très très très difficiles donc euh, dernièrement aussi il y a eu les inondations au niveau de Touba donc la ville sainte de Touba et un peu partout dans le Sénégal et ce qu'on a constaté c'est surtout le mutisme, le mutisme du, du régime. Ce qu'on a constaté, c'est euh, la béatitude de ce régime qui, qui, ne réagit pas par rapport à toutes, ces, à toutes ces situations, par rapport à tous ces problèmes. Donc, euh, fort de tout ça, donc l'honorable député Cher Abdou Baradoli voulait apporter un peu son, sa critique par rapport à toutes ces situations-là. En dehors de ça aussi, vous le savez très bien, la coalition il est le président de la coalition nekkal fi askan wi donc qui a rejoint la coalition Jàmm ak Njariñ du président Amadou Ba donc il voudrait aussi euh, vous dire pourquoi ce choix donc euh, entre autres il y aura d'autres sujets qu'il va aborder donc sans plus tarder je vais vous laisser euh, avec l'honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly comme ça il va il va parler de tous ces de toutes ces situations Je vous remercie. <coughs> Euh, monsieur Demba Dior Fall, le mandataire national des coalitions Nekkal Askan Wi, le coordinateur national des partis Askan Wi Dakar, le cercle de aussi au Askan Wi. fi may tàmbalee rek euh, samay kaddu mooy bala ma yëkkat samay kaddu dina sakku rek ñu def ñaan jagleel ko ñi nga xamante ni ñoo faatu ci mbënn mi am maatam muy jafe-jafe yooyu ngir que yàlla xar leen àjjana ma doog tàmbali waxtaan wi bisimilah alhamdulilah merci kon maa ngi leen di sant bu baax presse bi fi teew national international di sant yàlla bu baax di gërëm Serigne Touba Khadim Rassoul di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem kilifa diine yi tey nag dama woote woon pour wax ak askan wi ginnaaw bi nga xamante ni élection présidentielle yi jàll na bii mooy sama sama première sortie jàkkaarloog presse nationale internationale pour war a waxtaan ak ñoom di jëm ci mbirum réew mi ak bitim réew ndax ku ne xam na ni nguur gi bi leen falee ba léegi. ñu ngi seen juróom-ñaari lu weer mu am lu baree bari loo xamante nii waxoon nañ ko fi mu am lu bari loo xam ne diggee woon nañ ko fi mu am lu bari loo xamante tamit jot nañ ko def ci yenn jëfin yi loolu nag lu nekk am nañ si ab jàngat ak luñ ci war a wax ndax am na loo xamante ni bu tolloo fenn fi te ñëpp daan ma xamee wax ci wetu askan wi boo jotee te waxuma man mi fekk démb. fekk tey day mel ni dama gor wala duma gor wala dama ragal moo tax bi ma leen dégloo muñal leen déglu askan wi déglu kilifa diine yi déglu waa bitim réew yoon def na nag ma wax ak li nga xamante ne mooy sénégalais yi ñu nekk fii ak ñu nekk diaspora ginnaaw bi leen yàlla joxe réew mi la président Diomaye fay ak Ousmane Sonko premier ministre ginnaaw bu ñu defee seen gouvernement bu bees bi jamono yooyu ku ne xam ne ñu ngi woon ci assemblée national assemblée nationale boobu nag am na lu baree bari loo xamante ni doon ko séentu li nga xamante ni mooy déclaration politique générale bi loi de finances ak li nga xamante ni mooy wati bi nga xam mooy loi de règlement bi nga xamante ni cour de compte yónnee nañu ko assemblée nationale muy 2023 bi ak leneen yoo xamante ni. président la république yónnee woon na ko fa lu jëm ci tas ñaari kuréel yi nga xamante ni jëloon na maanaam moom ay engagement ni bu gagné da koy tas. bi nga xamante ni yàlla dogal na assemblée nationale ñi ngi war a def liggéey boo xam dafa jëm ci modification règlement intérieur assemblée nationale man maay ki njëkk a jóg en tant que député. wax ne règlement intérieur nationale bii nga xamante ni tey moom la ñuy doxe ñun am na si ay manque manquement yu si am kon nañ ko defaraat pour pour si mën a ñëw woon si proposition de loi yàlla mi dara tëwul. am ñeneen groupe parlementaire yu jóg mu yeewi askan wi ak wàllu ak benn bokk yaakaar ni kat ñoom ñi xam ñoo yor groupe yi ñoom nañ ko déposé seen bopp ñu déposé pour ñu modifier ko. gis na ni bi ñu ko modifié tamit ba permettre premier ministre ginnaaw bu constat waxee dafa war a ñëw assemblée nationale ci article 56 bi yàlla dogal na moom mu ni du ñëw assemblée nationale di fa jàkkaarloog ay député yoo xam ni xëy na amu fa majorité kenn ku nekk nag ak ni nga ko jàngate mais man la ma gën a loon mooy mu ñëwoon assemblée nationale ni ko yoon waxe ginnaaw bu loolu wee président la république sukkandiku ci constitution bi ci ginnaaw bi nga xamante yónnee na assemblée nationale ci ay kàddoom ak mbindam mu wér woo xamante ñun ñi am na document bi wax ni dafa bëgg premier ministre bi bis sàngam mu def déclaration politique générale bi wax ni tamit bëgg naa sukkandiku ci constitution bi ngir ngeen def nangam ak nangam ak nangam ñun luñ man lu dul déglu waxe président parce que nag moom la yoon def mu gën a kawe ci mboolem institution yi nga xamante moom na ci réew mi kon nag respectuwul kàddoom kooku sénégalais ñoom ñooy atte ci loolu moo tax ba nga xamante ni man yëg naa ne dañuy tas ensemble national teel na maa jël sama bagage lépp lu mu fa amul lu nekk jël naa ko des yàlla mi nga xam ne du jeex ah ñoom ñu ñëw tuubaa nag muy premier ministre ñëw Touba fekk président la République moo ko jiitu woon en tant que député boo xamante da nga nekk député département de Mbacké particulièrement nga dëkk Touba président la république buy ñëw gouverneur ak préfet ñoo la war a invité binn ma invité en tant que député ma dem naa teeru leen teeru leen ndax ganu Touba la ànd ak ñoom gunge leen ba ci sëñ taxa ba noppee man ma gën delluwaat sama kër dégg naa si nag ay commentaires yu bëree bëri ba am na sama yenn collègue député yoo xamante nii yónnee nañ sax ay kaddu benn waay bu nekk Canada ngir mu attaqué ma ci teeru gi ma teeru président de la république parce que nee na député laa boo xam ne waruma teeru président de la république xëy na ñoom foofu la seen xol toll loolu tamit am na fi premier ministre tamit ñëw fa benn yoon boo xam ni dafa ñëw ci Serigne Mountakha ni ko dama bëgg jël engagement ci sa kanam pour jafe-jafe yi nga xamante ni moom la Touba di dudd mu jëm si mbirum ndox mi ñuy naan ak assainissement bi dinaa ko regle dinaa laase li nga xamante ne mooy procès bi mois de octobre loolu premier moo jël engagement si kanamu Serigne Mountakha sëñ Mountakha woo sëñ bas Abdou Khadir sëñ Bass Abdou Khadir woo ma téléphone ni ma comme député Touba nga te yaa ngi taxawal askan wi nguur gu bees gi day jël nañu engagement ne dañuy defal li nga xamante ni mooy ndox mi mi ngi naan ak li nga xam mooy kii kon bëgg nañu en tant que député de Touba nga muñal leen wala nga accompagner leen si projet Touba yi. loolu moo war warloon jamono yooyu yëpp maa ngi def ay discours jëmee ci ñoom ngir intérêt Touba mais bi ñu demee ba si biir comme man Touba moo ma ñor. lu ma am Touba lu ma mel Touba la ma gis ay faay yoo xam tàmbali naa am bu njëkk bi mu jëm ci koo xamante ni mi ngi tudd Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne moomu man ak moom ñoo bokkoon nekkoon kaso rëbës ajjum bu jot daana gis xam naa ko fàlluwul diini ji fàlluwul tariixa wi gëmul benn religieux kooku xam naa jikko bi ñu génnee kasu man ak moom tamit déggante woon parce que man du ma jaxasoo ko gëmul sëñ Tuubaa wala ku yaakaarut kilifa diine yi yàlla dogal ñu jàppaat ko mu bokk ak ba Bassirou Diomaye fay kaso bokk na si li tax nangu woon a seeti Bassirou Diomaye Faye bi ma demee si Ousmane Sonko Omar Diagne moom bokk na si loolu yàlla mi mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw yu tegginu jëme ko ci suñ kilifa diina yi muy Touba ak Tiwaawoon dem ba wax ni Touba gi nga xamante ni sëriñ tubaa moom moo diglo ñu def jumaa ji boo fa demee da nga fekk signe franc maçon te ku ne xam ne franc mooy lan muy lu ñu naqar lool loo xamante ni jàpp naa ni nguur gi fi nekk mën nañ koo faj te fajuñu ko beneen bi mu wax ni xasaayid Sëriñ Tuubaa yi nga xamante ni maanaam moom la bind di ko tag yoon sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ ko war a yëraat parce que moom nee na moo gën a kawe Sëriñ Tuubaa ci njàng wala ci xam-xam muy ko xamadi koo xam ni jàpp naa ni tey sëriñ bi am na lu bari loo xam ne ñu ngi koy seet waaye kon jàpp naa ni tey mënoon naa demee nee na ni mu demee mu tegaat si ni képp koo xam ne kilifa diine nga li tàmbalee tam xarit màggal gàmm képp koo xam ne kilifa diine nga da ngay def blanchiment d'argent ak capitaux mu yaakaar ne aussi tamit loolu tamit ay kàddu yu teggin wut la loolu nag bu ko nit waxee te nga bokk fenn te nga amoon yéene peut-être jàppale nit ci vision bi jëm Touba nit wax loolu ci Touba ak Tivaouane te amadootul ñooñu te kooku man ko dàq walla mu naqarlu ko te loolu lépp defu ko kon damay defe nii li Bassirou li nga xamante ni moom la Omar Diagne wax Bassirou jomaay fay ak Ousmane Sonko ñoo ko si questionné ñoo si ànd ak moom te naar bu ndaw lu mu wax ci mag ba ko dégg te loolu ñoom bokk na ci seen procès yi nga xamante ni moom la ñu wax askan wi te ñi mu woon koo fésal loolu moo tax bi mu amee bi ma ko naqarloo ba pare dama see yëkkati sama kàddu ci assemblée nationale ci kan ministre la justice wax ko ni ko nel Diomaye Faye bi mu nekkee siin la mu waxante woon ak man ni mu ñëwee dana ko def pour dàq Omar Diagne na ko def loolu bokk na ci condition bi ma leen tegal ni loolu bu amul du ma ànd ak ñoom ñu ngi toog di xaar fan la wànneen di mujj ak ay bëtam beneen bi ministre bi nga xamante mooy mbirum ndox mi ñëw ba tuubaa ñetti nit faatu tuubaa ci mbirum mbënn mi mu ñëw amut benn pexe wala lu mën a wax loo xamante tax na askan wi seen xel dal mu ne nawet bii kat yàlla indi fi ndoxam nawetu Macky Sall du seenu nawet kon moom mënu si ndoxum Touba mi dara. ma gis premier ministre yëkkatiwul kàddoom déplacé wul ñëw fa ma ne kon kii la mu waxoon sëñ bi ak lim jëfe bokkul muy ñaari raison yoo xam ne tax na. ma wan leen ginnaaw ñetteel bi ma gis ni Touba dund gi muy dund ci ay jafe-jafe ci ñaari million doomu aadama di fa yeewoo Touba amul forus amul usine ndaw ñu amul ñu liggéey jigéen ñi kenn financé wu leen ba noppi ñaari bi ndox mi ñuy naan sax baaxul ba nga xam ne day joxe ay feebar tey bu tawee ñëpp am ay jafe-jafe. ma gis ni état bi jëlul benn engagement ginnaaw kàddoom yooyu mu yëkkatoon ni dana ko def mois de octobre ba fii may wax a yow defuñu ko ma gis premier ministre si boppam mi dëkk Ziguinchor mooy de 200000 habitants ne fa mu yëkkati 54 milliards def ko si Ziguinchor ma xam ni kon kii Ziguinchor moo ko gën a ñor si Touba ndax mënuma nangu tey Sénégal ni mu toll ginnaaw bu dakaar wee Touba topp si. département bi muy département bi ëpp population ci Sénégal yow nga dëkk Ziguinchor nekk maire Ziguinchor jël 54 milliards yoo xamante ni diggante 2024 bii ak 2025 ci nga ko war a dugal li nga xam mooy Casamance bàyyi tuuba bàyyi Fouta yaakaar loolu injustice mënu ko passé ci nit ku bëgg a defar da nga war a boole lépp. te gis na ne ñaari weer mois de novembre ak mois de décembre bi nga xamante ni bis 2024 si lay jeex. ci la war a jël li nga xamante ni mooy douze milliards francs fa vingt vingt deux milliards francs CFA ci ñaari weer yooyu pour war ko dugal Casamance yeneen vingt deux milliards yi nekk euh, deux mille vingt cinq kon weer wu nekk ci diggante novembre bi ak décembre bi ñoom dañuy débloqué fukki milliards ak benn dugal ko Casamance fan la xaj loolu tamit ñu ngi koy xaar pour ñu wax ñu fan lañ ko war a dugal parce nag ni ñuy luubale xaalis moom jaaxal na ku ne fi mu nii dem na ba ci woote bi ñuy woote tey sax danañ si agsi loolu lépp ngir jéem a naxal xelu askan bokk na si kon loolu fekkente ne abdan ma gis ni aussi tamit fuuta gi nga xamante ni ku ne xam ne jafe-jafe yu dund ginnaaw bu leen woo bokk ñoom coono bi ma jàpp ni ku mën a jox Ziguinchor 54 milliards war ngaa mën a jox fuuta 54 milliards dégg naa 8 milliards lañ bloqué débloqué huit milliards yooyu ñu ngi xaar fan lañ koy dugal parce que wax nag yomb na waaye tamit pour mu àgg si population bi ko soxla yaakaar naa ni war nañ koo xool saytu ko ba xam ñan ñoo ko war yore gis nañ nag ni lan moo tax ñoom jubuwuñu Fuuta pour xam na ni ñoom bu fekkente ne électoral la jàpp na ni mun ñu faa gagné ci élection yi ñëw xam na ne gagné wuñ foon élection yi passé kon ñoom bu sañoon ñoom ndox mii fa nekk ak jafe-jafe yi du jeex parce que bëgguñu élection am Fuuta wala nag est-ce que élection dana am Fuuta waa wala déet loolu yaakaar naa ni li si kanam rawuli bët ndax bu Diomaye fay ñibbisee déclaration bi muy def est-ce que day wax ni Fuuta mu ñu faa dem élection wala est-ce que day wax ne élection duñ ko war a dàq ndax nangam loolu am na ñu koy ruumandaat te jot nañ see waxtaan waxtaanu secret ba am na si yenn opposition yoo xamante ni jot nañ ko bëggoon a porter loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que nag élection yi fi mu toll ci sondage bi mujj am ñoom trent 32 pour cent lan am mooy waa Pastef xam nañu loolu man xam naa ko ñu bari xam nañu favorable leen jamono ñu toll nii ndax élection de réseaux sociaux te li nga xamante ni moo leen wataloon élection yi passé ñu si bare bari rëccu nan li nga xamante ni mooy wat gën a wataloon parce que xam na ni ay cuuna leen mun ñoo doxal réew mi yaakaar bi ñu amoon si ñoom ñëpp tamit xam na ni tas na parce que man toog naa moom toog na lam waxoon ni ba jotee si réew mi ñaari weer jafe-jafe dana ko saafara juróom ñaari weer mënut te teg benn biri kon lam waxoon amul. léegi nag nit ku nekk ci sa ay wax rek nga ko mën a jàppe bu jëfee nga gis Ousmane Sonko man wàccoo na ma moom ci lu ma ko war a defal lépp defal naa ko bu nekk si opposition bokk na si ànd ak moom ba dugg kaso ànd ak moom ba nangu samay kër fii maris ñetti kër fii maris Macky Sall nangu na ko ànd ak moom ba tëj sama entreprise Macky sàll teg na ma loolu lépp Ousmane Sonko bi ma àndee ak moom tamit lépp loo xamante ni ay jafe-jafe yu jëm sama kaw gis naa ni bokku ko ak man bi mu dugalee si kaso bi sama jabar mer na ma juróomi weer bi ma génnee parce que Ousmane Sonko tegul tànkam ci kër gi te xam na ko te daane fi ñëw ndax suur bi mu jógee kër aji saar sama kër gii la ñëw te loolu dana si ñëwaat ci kanam kon jàpp naa ni moom xam na ma man xam naa ko suur bi nga xamante ni sama yaay faatu na Macky Sall mi nga xam ne moo ma def loolu lépp dafa yónnee délégation ñu jaale ma woo ma téléphone Ousmane Sonko jaarul ci loolu nit nag bu ngeen dee ànd te nawlante wu leen kenn ko da xam sa bopp te ñu li ñuy am suñ tuwaa ñu ko may du jeex loolu moo tax may wax Sénégal yi nga xam ñoo may seetaan te xam ne heure bu ma yëkkati sama kàddu dëgg lay fas yéene wax ak ñoom gëm Serigne Touba dama ko yemale ak dara bu ñu fa doon def cinquante ans te lii nga xamante ni moom lañ war a def ci kilifa diine yi dàquñu Omar jàng du ma mas ànd ak ñoo war ma jàppale seen procès ñu jëm nag ci loo xamante ni le 17 soreetul parce que sénégalais yi ñoom ñooy àtte sénégalais yi ñooy xool ba xam dund gii ñuy dund. est-ce que dañoo bëgg mu continuer ci neex waaw wala déet est-ce que dañoo bëgg mu naqari continuer faw ci juróomi at yi waaw wala déet loolu souvent ñoom ñoo jël seeni matuwaay wote li nga xamante ni mooy wat contre leen wote opposition parce que man ak moom daan nañu ànd mu naan di campagne yéen sénégalais maa ngi leen di wax ni na ngeen jël opposition bi ngeen jox leen majorité Assemblée nationale ndax mënoo jox nit ki président de la république par jox ko majorité loolu baaxul si démocratie moom moo daa wax loolu waxi démbam nag boo ko nettalee tey bu naqaree ñan ñi mooy kon lam waxoon moo amul te dama daa dégg président Ablaye Wade daan ma wax ni nit bala nga koo xam dëgg-dëgg day am alal wala mu am nguur mu ne ma nguur xajul si baadoo la xajul si bopp ku dof waaye Ousmane Sonko mi nga xamante nii le 7 novembre 2022 à 21h30 mi mu sooy woon viam tam nekk mii Ousmane sonk mii wuute na ak Ousmane Sonko mi ma gis léegi bii le 7 novembre la woon këram ak sama doom bu jigéen bii nekk ci kaw 11 ans la am suur bii nii posan lan ko naroon a def maa dem di wax ko ko suur bii lañ ko waroon a posane man maa dem ci heure bi wax ko ni ko sa jàppukaayu oto danga def posan suur bii la woon suur bii nii si laa jëseeg Basiru Jomaay Fay ci escalier bi yéegul si kaw étage bi bu may wàcc suur bii la woon à une heure waaye Ousmane Sonko mii nag ak Ousmane sonk mii nga xam moom laa gis jam ñaajo barki démb am na différence ba tax na sama doom bii semaine bii pass la ne ma papa ki may gis si télé bi xanaa du Ousmane Sonko man àndoon man ne ko moom la kay man Ousmane Sonko day dafa mel ni papa fayu la sa fayu la li nga ko lebal ma ne ko kenn ku nekk xëy na yàlla mooy def li sa xol moo tax ma ni li ma doon ŋàññe Macky Sall lépp mu ngi ci usman sonk wala lu ko raw Macky fii nga xamante mooy maire fii nga xamante ni mooy maris gii Macky sàll moo fi nangu sama ñetti kër këyitu kër yaa ngi nii benn këyitu kër baa ngi nii Macky sàll moo ko nangu bàyyi la duwaareel mi ngi nii notification maa ngi ko amoon le 10 avril 2017 Macky Sall nangu na terrain bi beneen terrain bi ma doon wax Macky sàll nangu woon ko mi ngi nii encore mars laa ko amee woon muy ñaari terrain ñetteelu terrain bi moo nekk nii lii Macky Sall moo ko nangu si man ginnaaw bi mu tëjee suma entreprise bi nga xam moo tudd Doli BTP bi ma demee ba nga xamante ni dem naa ba wax ensemble ñu war maa fay man lii moo nekk contentieux bi nga xamante ne impôt domaine impôt domaine moo wax ni Cheikh du Bara Doli teere yi nangu maris dañ lay fay sensé loo ko def feneen contentieux bi njëkki dem mi ngi nii le 4 mars la woon 2020 numéro 842 contentieux bi ba muy dem ñetti kayit yi Abdoulaye Racine Sy dossier ci la bokkoon bi nekkoon directeur cabinet yu Wade ak Cheikh du Bara Dolly ak sama teere bi nga xam ne sama turu soxna laa ko di muy Bintu Mbacke beneen terrain bi muy dem contentieux moo nekk nii du Ndiaye moo ma ko jaayoon mi ngi dem le 8 juin 2020 ñetti terrain yi Macky Sall moo ko nangu si man pour ñu yóbbu ma contentieux bi ñu ma yóbboo contentieux ñetti terrain yi waroon a fayee ñu ngi nii lii mooy plan bi notification yi moo nekk nii à ku ñuy wax Mame Boye Diao moom moo fi nekkoon bi ma demee war def baay bi Mame Boye Diao daal ni ab Abdou Baddo da ngay xas Macky Sall moo tax sa terrain yooyu kenn du la ko jox ñu far ñàkk terrain yooyu terrain yi boo xoolee warul quatre-vingt-dix millions la franc CFA ma muñ ko topp si daw topp si wax Abdou Mbow mii nekk président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar woon wax ab Abdoulaye Daouda Diallo bu leen ko fay dara parce que ñoo yor nguur gi nguur gi jeex na yàlla moo fi des kon jàpp naa ni loolu bokk na si li nga xamante ni Macky Sall def na ma ko ci jëf yu ñaaw joo xamante ni Ousmane Sonko daanam wax ni ma bis bu ñu yàlla mayee ñu jël réew mi injustice bii la Macky Sall teg ñu ko teggi Ousmane Sonko nag bi mu ñëwee daf maa teg lu gën a pire li ma Macky Sall tegoon le 20 août 2020 dama amoon li nga xamante ni mooy autorisation exploration de carrière ci Thiès heure contrat bi mu nekk un million et quelque Ousmane Sonko nangu na ko si man ngir wut liggéey pour dimbale askan wi dimbali waa Touba moo taxoon Ousmane Sonko nangu na ko si man ngir que parce que jàpp na ni ànduma ak ñoom Sonko li ma tegaat ginnaaw bi nga xamante nii nangu woon sama ñett terrain yi dañ ni moom dañuy jël benn terrain si voleur bi fayaloo ko fi nga xamante ni mooy fi ñu wax mbuur kat ñu jox fa juróomi terrain kayit yaa ngi nii juróomi terrain yooyu Ousmane Sonko nangu na ko si man Ousmane Sonko hangar bii nga xam mooy engare pèlerin bii nga xamante ni maa fi jënd terrain soixante-dix millions francs fa te ma jënd ko le 8 décembre deux mille vingt et am li nga xamante ni maanaam mooy doireel bi moo nekk nii ba baay bi moo nekk nii doireel moo nekk nii plan bi moo nekk nii ba am autorisation de construire am li nga xamante ni mooy cent millions yoo xamante ni jël naa ko si banque pour war tabax terrain bi Ousmane Sonko nangu na terrain boobu juróomi tere yu nekk Mbour ak benn terrain bi nekk hangar bi muy juróom benn terrain Ousmane Sonko nangu na ñu ñëw géejawaay géejawaay googu dama faa jëndoon juróomi terrain ci filawoo yi waa impôt domaine ñoo ma jaay ak ay député yoo xam ne da na mayoon terrain ñu jaay ma juróomi terrain ci filawoo yi géejawaay yi Ousmane Sonko nangu na terrain ñu dem Ewesen bii nga xamante nii tey fii la yi amoon am koo xam dañ ko fa mayoon terrain ci famille mu jaay ma terrain million millions Ewesen Ousmane Sonko nangu na terrain boobu kon Macky Sall bi ma nangul ñetti terrain Ousmane Sonko nangul na ma fukki terrain ak ñaar muy waloru ñetti téeméeri million loolu nag teewul may dund tudd Cheikh Abdou sant Mbacke sëñ Touba di suñu maam waaye bu fekkoon da ko yemale si man dong sax amul problème mais ku ne xam na ni dëkk bi képp koo xam yaa ngi yëngut si mbirum business wala liggéey tey sa lépp taxaw loolu nag Ousmane Sonko moo ko def kon bu fekkente ni tey jii loolu am na ma gis Ousmane Sonko moomu nga xamante nii dañoo àndoon di xeex si dëgg ba dugg si kaso tey mu ànd ak waa kër Macky Sall yi nangu woon samay kër jamono yooyu sàcc xaalisu réew mi mu bokkoon si ñu rey nit ñi ñu ànd ak tey ñëw ànd ak Ousmane Sonko dama naan kon Ousmane Sonko daf ma jënd ay nit yoo xamante ne ay traître lan woon yàq alu réew mi ba pare bokkoon ak Macky Sall rey nit ñi Ousmane Sonko moomu fat na ki nga xamante ni benn directeur ci directeur yi jaay fukki terrain muy téeméeri million la jaay kër yaa ngi nii benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom-ñett lii benn kilifa moo ko jaay muy téeméeri million lépp benn date la numéro 54 22 54 20 54 21 ah 54 encore 20 ñaar terrain 54 53 loolu lépp ki ko jaayoon tey fekk na Macky euh, fekk na ki nga xamante ni maanaam mooy Ousmane Sonko ñu fat ko. ko yow nan ngay tuumaal nit ñi ay sàcc ba pare di fat ay sàcc Sénégal yi war nañoo bàyyi xel loolu te ki def lii bi ñu demee ba élection présidentielle yi borom terre ñëw saisir ma mu nekkoon candidat élection présidentielle ma xam ne bu ma ko jéebaanee dañuy yàq candidature da koo lijjanti fay téeméeri million yi loolu maa ngi interpellé ma dëkk ñaa sec boobu am naa copie bi remboursé na téeméeri millions yi mais kooku dafa sàcc parce que fi nga xamante ni moom la joxe woon mooy seen foot un amatul géejawaay léegi ñu ngi ko tuddee PDC léegi nag lii ma leen wax yépp lii mooy firne yi bu fekkente ni tey li nga xamante ni mooy terrain bi nekkoon hangar aéroport bi lii mooy plan bi plan moo nekk nii am na autorisation construire am yëpp jël 100 millions bëggoon faa def Ousmane Sonko ni kenn du tabax terrain bi ndax Cheikh Abdou Mbacké moo ko moom leneen yi des mi ngi nii autorisation construire baa ngi nii yëpp mi ngi nii te xam nga ni lii du ma ko defar état moo koy defar yi nga xamante ni moo jëm ci li ma doon wax léegi nii ku ne xam na ni boo xoolee lii benn baay la ci baay lii ñaari baay la lii ñett ngi nii ñeent ngi nii juróomi ngi nii juróom benn ngi nii juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk fukk ak benn fukki terrain ak ñaar yi ma am fii si Dakaaru yëpp Ousmane Sonko teg na si loxo te lii damaa jënd sama yëf moomal ko sama bopp musuma lekk xaalisu état bokkuma ci état benn yoon waaye nag am naa sañ-sañu ku am di ma jaay ma jënd ni Ousmane Sonko amee sañ-sañ jaay ma man ma jënd ndax bi mu amee ba am ay tolof ak ay jafe-jafe <clears throat> oto bi mu doon campagne gàddu kooram yore woon ko muy pick-up pick-up bu weex boobu F150 man mii la ko jaay ma jël ko jox ko seen seex say àddiya kon jàpp naa ni man damay liggéey waaye ñi nga xamante ni xëy na dañoo xamut kan mooy Ousmane Sonko bari na lu ma xam ci moom am na loo xam ne si may na ma duma ko wax waaye ànd na sama oto ñu def loo mu def loo nit loo xam ni bu ma ko waxoon day dem cour d'assises jamono yooyu sama oto man ak moom moom xam na loolu du ma ko wax waaye moom xam na man xam na Ousmane Sonko moomu man fekk naa ko këram li Barthélémy Dias doon wax man xam naa Barthé xam na Ousmane Sonko xam na waaye nag am na loo xamante ni sa ngor du la may lenn li waaye bu ko wax jotee si kanam dinaa ko wax kon bu fekkente réew mi àgg na fii Ousmane Sonko ni day woote li nga xamante ni mooy siga meeting Dakar Arena wax ni ñëpp nañ jëw ko ku ànd ak moom nga joxe 1000 francs man damaa defoon buy woote pour ket daf ko war a woote yóbbu ko Fuuta man loolu laa jàpp ak fi réew mi toll ak jafe-jafe sénégalais yi nga xamante ni lépp yokk na jàpp naa ni réew mi ku ne wut naqariwut da joxewul dépense ndaw ñi nga xamante ne xëy na bu ñu yeewoo dañuy toog seen buntu kër naan attaaya naan café lekk xaaju mburu ñu añ nga xamante ni xamul lan la dépense jar dañoo war yërëm seen papa yi bu ngeen gisee courant bi yokk gi mu yokk sax bokk na si modification yi ñu wax dañ ko modifier pour code yi bëgg yokk courant moo ko war warloon parce que man bi ñu ko modifié la 15 ba ma dugalee la ma doon am ci ay kilowatts amatuma ko manqué naa 5 kilowatts kon courant bi yokk na ndox mi yokk na nawet bi baaxul ndaw ñu amuñu liggéey li ñu bëgg nag ñoom bu ñu amee maturité jakartaamaan yi nekk fii yëpp kuy dawal jakartaamaan wala nga dawal moto da nga am permis loolu ci seen projet la bokk kon ndaw ñu war nañoo xam loolu. bu ñu amee maturité ñi nga xamante ne sama classe nga ay jaaykoot oto la nekk ci VDN bi ñoom ñëpp dañ leen fa jële parce que sama parking bi nekk maanaam fa la nga xamante ni mooy euh, euh, fii nga xamante ni mooy damel jox nañu sommation pour ñu war faa mu des li nga xamante ni mooy VDN bi ñëpp lañ fay jële parce que ñoom bëgguñu kuy liggéey bëgguñu nit ku yàlla wërsëgal ñoom jàpp na ni ñëpp ci ay baadoo la war a nekk te baadoola mooy xam morom baadoolaam ku yàlla teral démb tey doog a ñëw sëñ tubaab teral la nga liggéey 90 nga tàmbali tukki dem di muudu muudu ji ba yàlla may lim la may ku la ko soxore ku nekk na soxore yàlla mu nga xam moo la ko may léegi nag maa ngi defee Ousmane sonk di tax ma war a mën a ànd ak moom benn bi mooy mu dàq si Omar Diagne ñaareel bi mu taxaw waat si yàlla ne bu gañee majorité Assemblée nationale dana abrogé li nga xamante ni mooy am na si bi ñetteel bi mu wax ne bu fekkee am na majorité Assemblée nationale dana wote li nga xamante mooy criminalisé loi ngóor jigéen bi ñeenteel bi mu wax ni bu fekkente ni am na majorité dana abrogé peine de mort dana ko indiwaat juróomeel bi mu ne bu amee majorité dana def loi boo xamante ni day def offense au chef religieux juróom yii gin naa ci yàlla mi bind gin naa Serigne Touba mi nga xam suñu maam Ousmane Sonko du ko mas def ci réew mi Ousmane Sonko du am na si du ko indiwaat bu leen ko waxee waxul dëgg Ousmane Sonko du mas a wote bi nga xam ne day criminal su ngóor jigéen Ousmane Sonko du mas a wote loi bi nga xamante ne day indiwaat peine de mort. Ousmane Sonko du mas a wote loi boo xam ne day aar kilifa diine yi du ko mas a wote te maa ngi jël engagement fii may wax a yow en tant que membre coalition jàmm ak njariñ bi nga xamante ni si laa nekk muy neuvième position ñëpp xam sama taxawaay ci assemblée nationale bu ma yàlla dogalee ma dellu assemblée nationale loi yooyu yëpp dinaa ko dugal man aska wi nag ñooy xool ba xam est-ce que dañuy ànd ak ñi nga xamante ni dañu ñu dugal lu leen neex wala day ànd ñi nga xamante ne ay waxi kes rek lañ bëgg a wax ba dem falwaat assemblée nationale parce que nag lu waa am na si boobu noonu bokk naa su ñu ko wate de waaye bu dee mu doon tey duma ko wate parce que ñun ko defal jëruñu ko li nga xam mooy li si amaan nag ci jëf juñ ko defal te yàlla rek tax ñu de ko def mooy man maa sol sama tànk fii dem seet sëñ Mountakha waxtaan ak moom mu yónni ma ci Macky Sall ngir ñu bàyyi Ousmane Sonko. bi ma seetee Ousmane Sonko ci kaso bi man ak sama avocat maître Clédor Ciré Ly ñoo ànd 45 mille di 20 mille fekk na ko 25 mille fekki wu ci la jël engagement ni pare na pour waxtaan ak Macky waxtaan bu foofu la tàmbalee la ma wax moom xam na li mu wax man xam na te yàlla rek laa jël seede Ousmane Sonko bi mu nekkee si kaso ba ni mu génne ci sama xaalis man génne naa 23 millions francs CFA. financé ko si moom ci ay sëriñ ak yeneen yoo xamante yu baree bare nga Ousmane Sonko génn si kaso bi te moom xam na te séntu muy woon dara si moom Ousmane Sonko bu nekkee si kaso bi am na ci avocat yoo xamante ni si avocat yi koy fu daye maa yëkkat sama 2 millions jox ko sama safoor ne ko maa ngi koy dimbalee lii na góorgóorlu ndax li may defaan Ousmane Sonko defal naa ko Ousmane Sonko léegi la ma ko defal lii la ma fay encore ci awokaam yi am na si benn dossier boo xamante nii ci ñi ñu jàppoon nekk njaareem def nañ si loo xam bu ma ko waxoon tey ji avocat bi ñu ko rajee ci baro bi man xam naa ko te loolu lépp na nëbbal naa ko ko kon war nañoo xam Cheikh Abdou Bara Dolly fan la nekk gis naa yenn nit ñi ñu leen dàkkante la nangam Touba di ma xas di wax loo xamante ni du dëgg di ma sosal mais problème bi am man ak Ousmane Sonko bokk na ci lii mu def ma te xamante ni moo gën a yées li ma Macky Sall def kon damaa jàpp ni Ousmane Sonko moo gën a bon Macky Sall parce que Macky ñett la ma nangul moom mu nangu fukk ak ñaar Macky am na ku taxaw fii ku jiite woon deer bi ni kilifa diine yi bu ñu dama war ñu ñu dàq ko am na ku taxaw saaga maanaam kilifa diine yi te Ousmane Sonko dàquñu ko te li ma defal Ousmane sonk ci sama alal ak sama jëmm. defuloo ko Macky Sall te bi sama yaay gaañu Macky Sall jaale na ma Ousmane Sonko jaalewu ma ko léegi nag war nañoo xool foofu kan mooy nit ba pare boo xoolee ni muy doxele ak ni muy doxe nga xam def arrogant fii jërut àddina amul solo buy dox sax di bondet mel ni moom yàlla bu ndaw la lu mu laaj ni ñu jox ko ko am na sax ñu tudd ko mu jëtit am na ñu koy tudd sax yaa yàlla bu ndaw bi am ñu koy sax di waxal ay taala xarbatu li ñu doon wax yonte bi sallallahu ay wa sallam ay taala xarbatu alayna yooyu yëpp ñu ngi koy defal di ko jay addina nag buñ la jayee ba nga jayoo yàlla mi yor nguur di ko jox ku ko neex mooy ñëw màbb la benn yoon te firxaw naa leen ëppoon doole Ousmane Sonko na xoolaat boppam xoolaat doxalinam xoolaat entourage-am boo ñàkkee Cheikh Abdou Badol ñàkk sëñ Moustapha Sy ñàkk ñi nga doon àndal ñëpp jël ña nga xam ñoo doon xëy nga taf sa war ngaa xoolaat sa bopp xanaa man bon xanaa du man maa bon wala Déthié Fall a bon wala Serigne Moustapha Sy moo bon wala Khalifa Sall a bon wala Barthé bon xanaa juróom ñi am na ko si baax te ñu ñëpp la yemale bi mu faloo ba tey amul si kenn ku ma a yëg téléphone am wala téléphone te au moins nit sax bu la defalee lu baax bu ngeen demee ba réeroo sax nga fàttaliku lu baax lam la defal bu fekkee gor nga kon man li ma defal Ousmane Sonko fa laa mën yem ak moom mënatuma ko passé amutum looy maslaa moom léegi gat sa gat sa la te campagne baa ngi tàmbali incha allah ñaar la ma manal tëj ma kaso wala mu ray ma te lépp na maa ngi koy xaar di ko séntu parce que xam naa lim capable moom. ndax li tax mooy koo xam ni man bu dee kaso Macky Sall tëj na ma bu dee benn yoon la nit di dee te moom sowe naa vie am ñaari yoon benn mooy poson bi ñu ko waroon a posone ma yëg ko tournée bi ñu ko waroon doon doon def tournée côté yi Tivaouane te te waroon ko agressé la ko fanq man la Ousmane Sonko demee naa man ba jënd sareetu fas sareet ba ànd ak fas ak téeméeri mètre bu mu saraxeel ko ngir mu mucc defe naa ko Ousmane Sonko nekkate yoon bu toogee mooy gën a bon si réew mi mooy gën a bon si man mooy gën a bon si tarixa yi parce que fi mu seeg saytaane mënul paase yow nga ñëw ba Touba war a dem kër sëñ Fallou nga ne doo fa dem parce que waa kër sëñ Fallou bi nga nekk si ay jafe-jafe seet si wul fi mu se a paase. nga dem ko sañ Basiru bàyyi sëñ Moussa Naawel mii xalifa sañ Moustapha Basiru dem seet sañ Bas Poroxaan nga ne sañ Bas Poroxaan moo doon wax ak man sëñ Moussa Naawel yëguma nga ñu déetuwaay nga dem sa kër sëñ Sohaybu bàyyi sëñ Seex Say mii xalifa bi dem seet sëñ Fallum sëñ Sohaybu ñaari yoon teggi sañ Seex Say ñuy déetuwaay nga ñëw teggi Baay Faal yi teggi waa Njenne léegi ñun lan la ñu bëgg moom moom si ñun moo tax may wax sëriñ bi ni ko jëloon na benn décision si Touba maa ngi koy ñaan mu jëlaat décision mooy lépp loo xam ne bureau de war la si Touba na ko doxal parce que ñii nga xam ne ñoo nekk si nguur gi bu jëlu ay décision dana am lu ko naqari si dëkk ba nag nee naa leen pare naa assemblée nationale bii di ñëwaat te yàlla dogal ñu war ko tëggale 17 ma bokk ci liste jàmm ak njariñ Amadou Ba jiitu ko bu ma askan wi falee dinaa continuer di leen xeexal toogal Touba. bu ñu tànnee ñeneen député yoo xam bokkul ak man dinaa toog di leen seetaan pendant juróomi at léegi na ñoom ñoo tànn te nag nit ki moom bu fekkente ni jox na la añ jox la reer bu la déggee ndékki war nga koo gëm waaye nit koo xamante nii xaj na loolu lépp par dee dégg ndékki boo ko gëmee yaakaar naa ni ab dof nga kon askan bi nga xamante ñoo may seetaan lii ma leen wax nii bokk na sama différence sama diggante ak Ousmane Sonko mi nga xamante ni sama doomu ndey la ma daa wax mi nga xam ne daaw jóg sama kër mi nga xam ne guddeeg bëccëg mu ma daa kare kare mi nga xam ne bi mu amee jafe mel ni man kese la gisoon moom mi nga xamante ni bokk naa si li ko génn si kaso bi tey maay premier noonam ci réew mi parce que dëgg yi may wax taxawaay bi ma taxaw bëgguma koo xamante ni nekk nga ku may yilif ku dul sëñ Tuubaa te moom bëgg na ku mu jaxasol ko nekk nga nekk taalibeem man benn sëriñ laa muy si am dama Xaadimu Rasuul ñi nga xamante ni nag ñoo koy wër du ko fenal ñëpp fal na leen Sénégal ku la dàq fen am poste léegi maanaam concurrence poste yi mooy fen ku bëgg poste rek fenal la Ousmane Sonko fenal demal fen rek ci wetu Ousmane sonk yaa yàlla bu ndaw sa maama fi defoon lii yaa gën ci réew mi yaa gën a rafet nangam bu subaa ñu fal la jaaykatu garab sax yóbbu na leen député léegi jaaykatu cagri yóbbu na leen jaaykatu ginaar yóbbu na leen ku ne leen yóbbu assemblée ku ne ka doon xas nag may laaj Sénégalais yi ndax ñoom dañoo bëgg lu baax wala dañoo bëgg lu bon li fi am di continuer su ñoom ñu xam man de képp koo xamante yaakaar nga Serigne Touba yaakaar nga Alaaji Malick gëm nga diine maa ngi lay ñaan nga voté contre Pastef ci élection yi jëm ne parce que loolu mooy jàmmi réew mi léegi nag ma jëm ci li nga xamante ni fan yëpp ñu ngi si doon xaar muy sama livre rouge bi livre ruus bi. heure bi waroon naa fekk ma génne ko mais boo bindeloo livre rouge wala nga bind ko dafa am ñu ko war a saytu bala nga ko génne te ñu koy set am si ñoo xamante ni dañoo bokk ci projet Ousmane Sonko bi ndax samay xarit lan nag waaye ñi ngi koy xool am ñoo nekkuñu fi bu ñu si paree dinaa génn livre rouge mais dinaa génn waat beneen boo xamante ni pour Ousmane Sonko la ak Diomaye Faye loolu nan ma si xaar lépp loo xam ne jëf ju ñaaw la joo xamante ni defoon nañ ko bi nekk si opposition bi ak li nga xam ne moom lañ def bi ñu fi toogee juróom-ñaari weer yi dina ko ba def def ci ruus bi ndax nag fu ma ko amee livre rouge war nañu am ñoom livre noir ndax mburu mburu ko fëriñ te ñëpp nag ñu ngi jooy Macky Sall ba ci man mii de man de anduma waaye maa ngi jooy Macky Sall parce que wax dëgg yàlla ba fi nekkoon li ma dal nii du ma dal kon yéen presse bi maa ngi wax nii pour ma leeral Sénégalais yi rek. loolu moo tax que li nga xamante ne mooy suñu coalition bi ñu tëggoon coalition nekkal fi askan wi bi ñu demee ba war a déposé caution ba pare ba déposé Moussa dem Dior Fall nekkoon mandataire bi ba jot suñu set coalition yi nga xam seet nañu mooy bi nga xamante ni mooy Abdoul Mbaye seet si nañu ñoom Anta Babacar Ngom ak ñoom Amadou Ba waa Karim wat tam yónnee woon nañ si ñun mais dama waxoon ni tout sauf Benno Bokk Yaakaar loolu moo tax mënu woon a ànd ak PDS mais comme Amadou Ba ñëw na indi ñu procès yoo xamante nii jàpp naa ne bu ñu àndee solution la pour réew mi muy dalu réew mi ak jàmmi réew mi te am na xam-xam coalition bi jox ma ndigal ñu ñëpp ñu àndandoo pour dem ànd ak moom ci coalition si àndum nawle ñu def ma neuvième position sur la liste nationale kon jàpp naa ni ku bëgg Cheikh Abdou Bara Dolly dellu assemblée coalition boobu ngay woteel ndax nag bu fekkente ne réew moom ñu ngi koy xëccoo rek kenn ku ñu sa yey pour ñu mën a doxal réew mi kon daal maa ngi woo Ousmane Sonko mu delloo si war euh, raison xam ni juróomi at gaaw na lool te day jeex xam ne am na ñu ko defaloon jëf ju baax bi bi mu nekk si jafe-jafe yi xam ne ñii tey mu àndal nii ay Mimi ñoom ay nangam nangam ba muy metti ñoo ko doon saaga ndey tey bu leen mënee taf si wetam du wuti ay transiment te waxoon ni moom kenn ku ne fa nga ne na fa nekk tey muy woot ni ñëpp ñëw kon am na lu xew ndax sondage bi ñu jot xam na ni ñoom doo nga bu nee duñ gagné waaye nag booy wax ay sàcckat moom waroo fati sàcckat wax dëgg yàlla. kon moo tax ma ni bu ñu jotee si réew mi ñun ut kutu suuf dañ ko taxaw pour sàcckat yu njëkk yi fi nekkoon mais sàcc yu bees yi tamit dañ leen topp si yoon parce que li xew ASER war naa leer li xew ONAS war naa leer situation bi nga xamante ni tamit moom la ñuy tu ruumanaat war naa leer aussi loolu bokk nañ si ut kutu suuf bi nga xamante war nañ ko taxawal assemblée nationale bu ñu yàlla ma majorité coalition Jàmm ak Njariñ dañ ko taxawal assemblée nationale daan taxawal ay commission de enquête dañu jéem a xool ñëpp ñoo xamante ni lu baloon lu réew mi si ñi passé ak ñi nga xam ñoo fi nekk dañ leen topp ci yoon am nag loo xamante ni dañ ko wax bi campagne bi tàmbale comme ku ne xam na ni ak euh, situation bi am ni incha allah pour wax sénégalais yi lan mooy seen programme campagne incha allah Amadou Ba lundi dana def déclaration pour ñëpp xam fi mu bëgg a dem ak tuuma yu ñaaw yi nga xamante ni moom la ko Ousmane Sonko tuumaal te du dëgg daan si gindi Sénégal yi ak jëf ji nga xamante ni Macky Sall jotoon na ko fay jëf loolu lépp dana ko leeral Sénégalais yi incha allah à partir di lundi pour Sénégalais war a xam ki nga xamante ni mooy Amadou lot ñu choisir ko ak lan moo tax ku ñu doog waaye daal na leen wér si Sénégal yëpp di ma jël témoin Ousmane Sonko moo gën a bon Macky Sall je vous remercie jërë nga